màggat Ahmadul Amin moom la nu may surul xar baax la feese ba ni buuj baay baa ko lem ci xarnu bi baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu far ko lem ca biir boo ko gisee ma ngay bangeal ni kuy wumat ci xarnu bi fa jaajo moo ci gën a gaaw lu wax borooma mu ne waaw fa yaaja moo ci gën gaaw lu wax borooma mu ne waaw day fa di foll ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi mooy way te jàngul woon araf moo man di xiim te du jasur moo man araab te man walaaf jomal na mbooleem xarnu bi fam na ca baay ba yenu diis te nurul boroomu tiis ji moo di dexu wees moo mën a mandal xarnu bi bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sant Cheikh Ahmadul Khadim si ndigalu Serigne Touba Cheikh Mountakha waaye ndigal laa ngay dem ak kuy mbind si ndigalu Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidil Muxtaar sunu jàmbaar ja waaye nag ndigal laa ngay dem Touba Argentine fekk ki nga xam ni ah mooy Serigne Sidil Muxtaar moom lañ duppee waa juróom wu tedd wa Serigne Cheikh Mati lay di woote nag bis boo xam ni bisum Cheikh Ahmadul Xadim ànd ko nag ak jàmbaari Serigne Touba ya ànd ko ak taalibe Serigne Touba ya ànd ko nag a ñi nga xam ne ñooy waaye guy min guy min di gépp ak Daaru Xuddoos waaye nag màggalu Mbàkke Kajoor la ñu ngi ko defee Argentine ànd ko nag la ambassadeur Serigne Touba Xadimul Mustafa Serigne Sidil Muxtaar soxna woo màggalu Mbàkke Kajoor gaa ngi noonu sëñ Fallou na ko ñëpp fekkee mu ngi noonu kan moo ko wootee muy Serigne Cheikh Matile moo ko wootee fële ca Argentine kañ la li le 17 mars foofee ca Argentine ca Sos Beñaaw hôtel numéro 361 mbokk taalibe yi xarit yi ak am jàmm yi ak mbokk ñooñee nga xamante ne ni ñoom ñoo sos bërëb ba di kuréel yaak taalibe yi ak daayira yëpp ñi nga xam ne ñooy daayira Cheikhul Khadim woo nañ leen ca bés boobu ala Sëriñ Fàllu ca bés boobu nag yaakaar naa ni euh, mbokku taal bi dañ ko war a teewee ndax buñ ne mbàkke màggalu Mbàkke Kajoor taal bi war nañ koo fekkee fële ca Argentine ah soxna waa loolu bis boobee sëñ Bàmba ñi ma wut bor daa am pay mhm. te ku mu fattoo fanaan biti tukkeem boobu mu dem ci géej gi mhm. moo war ak jàmbaar yëpp àndandoo nag mhm. dem nag ah ak sunu waay ji sunu sang bi ah Sëriñ Sidil Muxtaar sëñ Cheikh Matile yàlla fa yàgg tëwee amiin liggéeyal am Sëriñ Tuubaa rek waaye nag di wax ni sunu jàmbaar ja fan la woote bis bi foofee ca Argentine fa la ko wootee ci sës be ñaaw hôtel numéro 361 bis ba nag nii lay tëddee bu nu xëyee daan jàng alxuraanul karim yendoo durus alxuraan waaye nag yendoo durus xasiday Sëriñ Tuubaa yi fanaan na ko ah ànd ko nag mawludkat yi ànd ko duruskat yi fas yéene nag ñu ànd ak Baay Faal yi ndax nag boo nee laa ilaaha illallaa xel yëpp dem ci Muhammadu Rasulullah waaye nag boo nee Muhammadu Rasulullah xel yëpp dem ci Xaadimu Rasulullah waaye boo nee Xaadimu Rasulullah may si biir Kumba Fall mi ni boole fërëxatu njaar dem def ba moom Seynabou kon nag mbokk xarit yi bés baa ngi noonu bu ko kenn tardé le 17 mars la foofee ca Argentine ca Sos be ñaaw hôtel numéro 361 woo nañu mbokk taalibe yëpp man nag kenn du ma fi bàyyi. Ah, man doo ma fi bàyyi maa nga ca yoon ba. jagleem nga jiitu nag juddoom mbar mu ko sooru daa meloom xajul ci xarnu bi yàlla nu ko may mbooti la mi fegal ko ay yu def xoloon ku dégg ñaan diine la niin ngir yàlla naatal xarnu bi nan tàgg Ahmadul Lamin moom la nu may surul masuul xar baax la fees ba ni guuj baay baax walam ci xarnu bi baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu far kolom ca biir boo ko gisee ma ngay dangeer ni kuy wumat ci xarnu bi fa jaajo moo ci gën a gaaw lu wax boroomam mu ne waaw